bi ñu ko tabee ci bopp caisse des dépôts et consignation meeru Mbuur bi dajale woon na kilifa diine yi kilifa aada yi ngir waxtaan ak ñoom eh, ci bile tabbu waaye tamit eh, ci candidat bi nga xam ne mooy Amadou baax président de la république Macky dafa am fu bees fu mu ñu teg mooy direction général caisse de dépôts et consignation muy bërëb boo xam ne bu am solo la c'est liy développé suñu dëkk bi waaye ñu doolu si ne eh, président de la république daf pour élection yii di ñëw ginnaaw bi mu jëlee décision bu rëy boobu nga xam ne dëkk yu bëri nit ñi pour nekk président de la jaral na leen ñu rey seen askan jaral na leen ñu taal seen dëkk moom pour respecter kàddoom dong tax mu renoncé ci candidature boo xam ne ñëpp xam nañ ne loi bi mayoon na ko. Cheikh Issa Sall nag di woo ñi mu bokk ak Benno Bokk Yaakaar ngir ñu dellu si waat ci bile coalition waaye tamit ñu juboo nekk benn. ñu ñaan yeneen candidats yi nga xam ne ñun ñëpp ñoo bokkoon benn Bokk Yaakaar ku mel ne sunu frère Aly Ngouille Ndiaye ku mel ni Mame Boye Diaw ku mel ni ay Serigne Gueye ak ñooñu ñëpp. ku nekk na nga na nga xool intérêt Sénégal nga xool également sa kóllëre ak président de la Macky Sall ak euh, fi nga xam ne euh, foofu lañ bëgg a yóbbu réew mi si jamono boo xam ne Afrique ak monde bi xaw na jaxasoo ñu ñëpp ñu fàtte sunu bopp ñu nekk benn dànk ñu ànd yëkkateendoo tegandoo te buñ ko defee la daan am rek moo daan mooy amaat. directeur général bu CDC bi moom bëgg yëkkatiwaat bile kuréel ngir mën ko suqaliwaat waaye tamit boole ci liggéey xarañte ngir mën a yóbbu Sénégal ci kanam.